Assalamualaikum warahmatullah. man la Mor sar mag ci sar papa ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay Adji Sarr instant bii ñuy wax ak yow daa feebar a feebar ba ma ngay génne dara bu bëggoon audio bii ngeen jotal ñu ko suñu mbokki Casamance diggante séeréer la ak su wéree rek Adji Sarr dina wax dëgg loolu nan fexe mbokk yëpp jot rawat na mbokk Ousmane Sonko yi li ngeen def aji Sarr bu wéree rek dina wax dëgg maa ngi ñaan yàlla audio bi waa Casamance jot ci. asalaamualeykum wa rahmatullah euh, euh, bii moom dama koy yóbbu ci aw wolof a ah. euh, je crois que nee ne moom Mor Sarr la le frère de aji Sarr. nee na Alioune dafa feebare feebare feebar ba mu waaj a génn deret mais bu dee mbokk Casamance yi am na lu ñu def euh, nañ ko dindi su booba Adji Sarr wax dëgg boobu yomb na Adji Sarr bu ñu bëggee mu wax dëgg bu dee ci loxo yi mu nekk ba tey ñun du ñu dindi de bu dee Casamance def nañ dara mais yaakaar ma Casamance def na dara lu mu def boppam lu mu def loolu moo ko tapp fenn yu mu fenn moo ko topp mais nag ci biir témoignage yi ku képp ku témoigner ci yoonu dëgg nga gis euh, mooy l'équipe du ma ne sa président l'équipe de Firawna Sall topp ko di ko xoxotal donc bu ñu bëggee nag Adji Sarr am jàmmam na euh, nijaayam bu muy ne def ko ne sax nañ la fay lu jaral nga tuumal Ousmane Sonko kooku jabaram ñëw na témoigner ba mariage seen mariage yàqu nijaayam boobu na taxaw devant public mu ne leen axankay man maa ko sant ma ne ko ñu fay ko ko jar ay mbokkam ñoo xam ne bokk nañ ci complice bi nañu taxaw ñu témoigner devant tout le monde ñaan fu fuñ ko kidnappé dugal pour mu bañ a nañ ko libéré mu wàcc si ba fii bi ñu na département de Bignona pour nga xam ne foofu mooy siège président Ousmane Sonko nit ñi toog ñu def ko lu ñu koy def mu mën a jeex sinon duñ ko mën a toppatoo à distance.